jàngoroy coronavirus mi ngi tàmbalee raw ci bopp réew mi li ko waral ginnaaw ma ab doomu sénégalais jógee fële ca dëkkub itaali indaale feebar bi dem na ba wàllu juróom ci waa këram lim bi tey mi ngi toll ci juróom ñett kon muy wane ni tiitaange bi fi nekkoon ba tey day gën di yokk le Dakar waa 221 tey tàllal na micro ñenn ci askan wi ngir taataan seen xalaat. waaw xanaa tiit ak njaaxare ndax fii boo dugg see Dakar gis ne habitude dara changé wul.

Euh, Ebola bi mo gënon compliqué Daron na fi mais bobu jàppoon nañ ne ministère de la santé kaka ko won dafa def santé muy Eva Marie corsac tay ki nga xamantene mom moko yoré mu nek euh euh le maire de Yoff euh, Diouf Abdoulaye Diouf Sar bon ñun jàpp nañ ne xamul dara ci affaire santé euh, donc li mom bu ko réussiré dañ ci santé yalla quoi mais dal ñun amuñu ci yaakaar ci ni nga gis ne mom lañuy doxé

di dinañ jël sa adresse jël sa numéro téléphone mais virus bo xamante il faut mu def fukki fan ak si nit ki mais lan mo leen téré ñu tej suñu frontières yi tej suñu aéroport yi en attendant de trouver une solution en interne mais ñu bàyyi suñu fuk ak ñaari dom feulé en Chine parce que dañuy bañ mu am ay affaire contamination ba près du ubbi aéroport yi aux français yi nga xamantene heure bu len neex lañu ñu heure bu len neex lañuy delu donc je pense que sincèrement état au Sénégal japp naa né ils n'ont pas pris leur responsabilité face maintenant à ce problème là maintenant c'est au Sénégal de prendre leur responsabilité mais li wóor te wóor ñuy gis ni ni si dëkk bi ni japp nañ né amul ben mesure bu strict bo xamantene état bi jël nako pour régler ce problème là ah état bi tan taxaway des na dé seen taxawaay def na lu bare bare bare bare bare man moom man moom wax dëgg neex yaa Sénégal laa de mais képp ki Sénégal ni man moom war ngaa mën a tiit parce que il paraît que ñi ngi dégg ngi dégg benn Modou Modou bu jóge Italie ñoom nee nañ jël nañ matuwaay yu ci mat sëkk comment ça fait que Modou Modou bu jóge Italie wàcc aéroport Blaise Diagne yor doomu feebar bi ñu bàyyi ko mu dugg ñëw ba Touba bala wàll ay doom ñu ne jël nañ matuwaay loolu koy jar tiit soxna wax dëgg neex yàlla moom tiit naa trop trop tiit naa trop. tey jii ban message ngay lancé. ah dañ ne dañuy jël dañuy tëj frontières yi kay xool ko war a dugg parce que étranger yi ni ñuy duggee suñu réew mi dafa doy waa trop trop barki demoo Ndiaye national benn bus bu def ay chinois ñoo ci wàcc ñi ngi ne coronavirus bi Chine la jógee balaa defuñu si dara ñoom ñu war a ñu war a def stade nekk nombre donc man daal gëw ma ni daal jël nañ mesure bi wax dëgg neex yàlla gëw ma ni moom jël nañ mesure bi. ah population bi nañuy kii rek nañuy ku ci lu ci mel ni élèves yi wala gars yi liggéey yi ba wàcc bu ñu wàccee nañuy raxas seen loxo rek ba avant ñoo lekk tamit nuyoo bi tamit ñu wàññi ko suñu gisee képp kuy tuccooli buñ ko mën a éviter tamit ñu éviter ko ah yooyu daal laa xam ne daal mën naa ko ci jox. Oh, bu fekkee ni nit daf la tàllal loxo nga ni ka comme dañ joxe ay mesures léegi ñun imaam yi ñi ngi xutba ñi ngi joxe information bi dem naa benn tudd. sama benn mbokk ñëw talal ma loxo maa ngi yor kurus di wërd man que ni salaamaaleykum moo ni ma lii du yëfu jullit waaw donc bu ñu fi demee ba loolu nga xam ni rëy baaxul waaw docteur bu feebaree du faj boppam sëriñ bu feebaree du faj boppam imam bu feebaree du faj boppam président bu feebaree du faj boppam docteur yàlla leen jagalee loolu mooy seen liggéey ku nekk seen liggéey ku nekk ak sa ni ñu joxe comme directive naka ñëpp appliqué. gàmmu lan la célébrer juddu yonent bi mën nga ko def à tout moment bu fekkee na nga ko war a def ci période bii ñu ne léegi nañu interdire rassemblement yi ah nga plier wu rek ziyaara mën nga ko def à tout moment bu fekkee ne ziyaara bi donc euh, da nga ko bëgg a def ci période bii ñu ni léegi rassemblement yi nañ ko wàññi mais nga plier wu mais bu fekkee ni da nga bëgg rek daal ni waaw man daal foog ma def ko ci bés bi foog ma def ko ci bés bi loolu aussi c'est-à-dire dafay exposer nit ñi.

donc ba tax na daal nit ñi daal donc nañu fagaru xam ni lii loo xam ni balaa bu yàlla indi la ñuy ñaan yàlla mu romb am na lu ko fi jëkkoon donc romb na donc ñu jëlee ko noonu rek parce que bu fekkee ni da ngay regretter daal ni ah man de li ma war a jot ci aadiya wala li ma war a jot euh, ci bénéfice bu fekkee ni organisé wu moo ci période bi dama koy ñàkk euh, conséquence euh, impact boobu ci àddina bi yëpp la du ci benn nit rek donc euh, nga ñàkk nag alal hmm? wala nga annuler benn voyage wala benn rassemblement moo gën nga jël feebar bi jox ko sa waa kër jox ko ñëpp donc loolu daal la amoon la ma ci wax wa salaam. waaw ñu ngi ciy méttitlu rek di ko naqarlu parce que Sénégal mun naa ne dañoo xaw a weex dunk feebar bu ñëw rek il faut ñu fexe ba mu yegg si fii Ebola bi cas boobu noonu la woon gis nga de pare ci coronavirus bi. pour man dañu war a def comme dëkk yëpp ni def gën a aar sénégalais yi gën a saytu daal Sénégal jéem a tëj frontières yi comme ñëpp mais lu ñëw rek lu ñëw rek ñu taq ci wala lu ñëw rek Sénégal am ci bopp loolu moom métti naa ko trop nañu gën a fagaru daal guvernement beeg société bi jël seen matuwaay comme tëjuñu frontières yi sénégalais jël matuwaay gën a yokk propreté bi gën a yokk hygiène yi ku dem boo ñibbisee sa kër nga jéem a raxasu parce que ñu ngi am accès ci restaurant yi yaa ngi recevoir nit ñi ñu ngi am accès ci tataay yi ngay ñibbee fépp ay nit la daal ñu moytu mbooloo yi daje yi fu nit ñi di daje rek ku ne moytu daal gën a fagaru daal gën a fagaru ci wàllum restauration mhm. tey jii ba feebar bi mu ngi dox parce jël nañ suñu matuwaay am nañ ay gel hygiénique yoo xam ñu ngi ko jël teg ko fii ku génn ci toilette yi wala ngay dugg da laal suñu toilette tam jël nañ suñu matuwaay dafay fay javel ak ay madaar yëpp daal ñun def nañu suñu suñu lépp lu ñu war suñu digganteeg ñi fi dugg si def nañ ko xeetu propriété yëpp teg nañ ko fi. kon tey ban appel pour ñu jël seen ay garde par rapport ak feebar bi. waaw na ñëpp jël seen garde rek ku ne sa kër comme mënoo bañ a génn wala munoo ni ñuy société bi nu mu dëkk mënoo bañ a affronter nit ñi daal ndax ni ñu dëkkee dañuy affronter nit ñi par force. nga jël sa matuwaay rek sa kër boo yeggee boo amul sa gel yomb na nga jël sa eau de javel ak sa madaar teg ku génn ba ñëw raxasu xale itam ñu leen di jéem a sàmm ñu jéem ku dem ñëw daal raxasu rek moo ciy sës waaw comme tëjuñu frontière yi daal ku ne jël sa matuwaay. Ah, côté bu ñu ko mënee xaw a wàññi ñu xaw ko wàññi tuuti parce que ñun am na récemment rek bu ñu naroon am dimanche mais dañ ko mujjee fomm sax sama frère bi ko fomm sax ndax bi ñu xaw ko rek ba bi xamul tous ces cas sont importés mais vous aussi euh, vous n'êtes pas sans savoir euh, l'existence tout simplement de la porosité de nos frontières n'est-ce pas hmm? quels sont tous les moyens que nous pouvons mettre euh, en place hein, pour éviter, comment dirais-je, l'entrée ou la, circulation, n'est-ce pas, donc des, des, personnes. Bon, je ne crois pas que tous ces moyens-là puissent exister. Peut-être, euh, quand il s'agit par exemple des aéroports, hmm, le contrôle y est, les ports, au niveau des ports aussi, le contrôle y est, mais par la voie terrestre aussi. Hein, regardez ce qui s'est passé à Kolda. Hmm. donc, euh, personne n'est assurer que, par exemple, euh, cette maladie-là ne va pas continuer à se propager. Mais ne pensez-vous pas que l'État devrait prendre ses responsabilités et fermer une bonne fois ses frontières Oui, c'est une mesure, hein, mais aussi c'est un couteau à double tranchant. Donc, euh, nous, nous ne sommes pas comme ces pays-là, euh, les États-Unis, ou bien l'Italie, ou bien la France, n'est-ce pas hein? Nous, nous sommes des pays pauvres, Hmm? Nous sommes obligés tout simplement, pour notre subsistance, d'importer beaucoup. Vous savez que la plupart hein, euh, de ce que nous utilisons ici, ce sont des produits importés. Alors, que ce soit de la Chine, de l'Allemagne, ou bien du Nigeria, ou bien hein, même de l'Afrique du Sud, ou bien du Maroc, nous importons beaucoup. Ah, nañ mooy lu ñuy wax ne sëñ bi sëñ bi ñaan na ci kii ñaan na ci kii ñaan na ci kii ñaan moo gën a kii seen yonent bi mu nga fa. Hmm? te coronavirus bi wax ne dañoo arrêté yëpp bu kenn dugg hmm? France hmm? Allemagne Espagne itali Afrique du Sud yooyu yëpp de coronavirus dafay jaar ñu rëy ay ay junniy junniy nit waa loolu nañ moytu rek nañ moytu ñu rakatoog saabu. ñu moytu defoo dajaloo bi dajaloo bi baaxul ci baaxul ba dajaloo baaxul maanaam ay kew yooyu màggal yooyu gamma yooyu xew yooyu yëpp xam nga loolu yëpp baaxul. Hmm. waaw nañ ko moytu daal ako même bu fekkee ne mun nañu xam naa ne du yomb nag wante bu fekkee mun nañu arrêté école yi ñu arrêté ko bu fekkee du yomb nag du yomb waaw ak gammo yu ñuy def fii loolu yëpp. dangay waaru daal waaw. dëgg a Sénégalais bu loolu loolu doy na waar de dañu waroon tëj dañu waroon tëj frontière yi waaw maanaam mm, jëlmi ci affaire avion yi ah, ak affaire port bi dañ ko waroon a kii ak affaire frontière yi ci diggante dëkk ak dëkk dañ ko waroon tëj yow yëpp waaw kenn bala dugg daal waaw. waaw nekk na benn feebar boo xam ne wax dëgg yàlla lu ñu jaaxal la te loo xam lu yéeme la quoi ndax feebar bi wax dëgg yàlla loo xamante ne bi chaque jour loo xamante ne bi ci réew jàmbur lay nekk Sénégal lañ koy indi ñun loolu rek moo ñu jëkk a jaaxal quoi ci Sénégal Sénégal nekk na loo xamante ne bi maanaam lu mën doon rek ku fiy daw di ñëw rek leneen nga fiy dugal mais nekkul ne kaso de jàmm nga fiy dugal wala dara loolu daal lu ñu jaaxal trop wax dëgg yàlla loolu nag bu ñu si mën a jàppale xam nga feebar bi instant yi nii instant yi nii tal na leneen lu dul feebar boobu de instant yi nii ñu dal ñu bari tey Sénégal la ñuy daw dugg te da ngay jékki-jékki rek dégg leen ñu naan ñi ngi biir Sénégal ñi ngi nangam mais doo xam fu ñu jaar man xam ma affaire yi nu fa demee noonu nekk na loo xam ne daal lu ñu jaaxale di ñaan yàlla nag yàlla suturaal ñu quoi musal ñu ci ne wax dëgg yàlla musal ci doomu aadama yëpp. ah waaw nañ ci taxaw bu baax rek ñu gën cee taxaw bu baax ndax yàlla suturaal ñu ci quoi musal ndax nekk na loo xamante ne bii feebar bi moom ku ne xam ne ne jigul kenn ndax nekk na loo xam ne mooy loolu kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla mooñ ci rek mooñ ci mën a jàppale mais lu jóge ci réew yi jàmbur rek seet naa bu seet mais Sénégal rek lay daw dugg man loolu daal moo ma jëkk a jaaxal bu ñuy di ñaax nguuru Sénégal ngir mu tëj ay buntam ñi ci des moom ña ngay ñaxtu ngir ñu tere lépp lu jëm ci wàllu am na sax ñu jàpp ni Abdoulaye Diouf Sarr ak équipe dañoo war a yokk seen xarañte ngir jàmmarloo ak feebar bi ñeneen sénégalais yi li leen yitteel mooy ñu fexe changer suñu comportement a fexe topp mesure d'hygiène yi nga xam ni moom la fi ministère de la santé digle.